rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ne ci biir réew mi ak yi nekk ci bitim réew noo ngi am mbégte di toog ci jataay bu am solo bi nga xam ne ñi ngi ko toog ci ndigalul Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye toog ci kilifteef ak njiitul Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu organisation Màggalu Touba ba noppi yore kàddu xalif général kulu murit waaye jógit ci kàddu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mi nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàllu communication ak culture ñu ànd ak sëriñ Modou Mbacke si moom sëriñ Moustapha si moom Serigne Malick Bassine mi nga xam ne moo jiite liggéey bi nga xam ne moom lañuy def waaye mu feggoo ak Serigne Khady jaxate ak Serigne Fallou si ak bokk yi ñu àndal ñu new nag ci kër goo xam ne kër Serigne Mouhamadul Mountakha la waaye kër Cheikh Mouhamadul Moustapha la kër Cheikh Mouhamadul Fadil la kër njabootu Serigne Touba gépp la mu di kër Cheikh Mouhamadul Amin Baara moom Serigne Touba Xaadimu Rasul fekk fi jëwriñ ji nga xam ne mooy sëtën bi ko jëkk a wuutu wuutu ay wayjuram waaye toog togaayu maamam di Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidi al ñuy ñaan suñu boroom mu may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér-gu-yaram te defal ko mbooleem rakkam yi topp ci ginnaawam yëpp ak mbooleem taalibe yi topp ci ginnaawam yëpp sëriñ bi jox ñu ndigal ci ne karawaan bi nga xam ne mooy xeñtu jeexitali sëriñ Tuubaa yi waaye ak di topp mboorum sëriñ bi fi sëriñ bi jaaroon waaye di def ndigal li nga xam ne Cheikh Sidil Mokhtar xalloon na ko te moo di innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum waaye yaatal it waxta si moo bi abdillahi jamian wala tafarraqu ma taxoon sëriñ bi waxoon nañu fépp foo xam ne diine dem na fa su fa jéegooy sëriñ bi ne àgg nangeen ko fa demal loolu mooy yaatal karawaan bi ci biir réew mi ci kër yi diine yi ci kër yi njabootu sëriñ Touba bi ak ci kër yi taalibe sëriñ Serigne Touba bi loolee bi Cheikh Mouhamadul Mountakha ñëwee loolu rek la wax ne loolu moo xàlloon ngeen di ca jaar daal maag yéen ko daan ànd kon bu demee ba ñëw ci samay loxo dama naan leen wéyal leen ñu ñëw nag sëriñ bi di la nuyu di am mbégte bu baax ci dalal gi nga xam ne dalal nga ñu ko sunu kër di la jaa jaajëfalit ci liggéey bu rëy bii nga xam ne ndamul lislaam la di ndamul Cheikh Sidiyal Muxtaar waaye di ndamul seex Mouhamadul Muntaxa di ndamul yoonu murid lépp mu di julli gii ñu julli jumaa yi Masaalikul Jinaan te kenn nattalu ne Masaalikul Jinaan ku ko tudd balaa xel a dem a fenn dafa njëkk a dem ci Cheikh Sidiyal Muxtaar mu dundam gépp mu jeexal ko ci lu man ak lu mënut ngir taxawalal sëriñ Touba ñaari drapeau yooyu yee nga xam ne moo nekk ca Ndakaaru benn ba di mooy bi ko fi tubaab bi jëlee tam waxaloon boppam ne xarajtu yow ma sabti saamina asar li xidmatil muxtaari fi sahri safar ba ñu ko yóbbee ca Ndakaaru yaari guddeem yooyee muy wax foofee la waxee ne xàllama ni rahmaanu fi safina bi annani xadimu sil madina suñ boroom moo ko xamal na ko day liggéey li Moustapha rek waaye lee mu del siwaat guddeem yu tar ya nag nga xam ne koor la jóge ndar dugg ci saxaar gi wàcc ndakaaru ci waxtu dog nee na ma jort ne dañ may wan barab bu ma mën a doge ñu tàbbal ma ci néegu lëndëm boobee nga xam ne ba ma dugalee sama tànk ndaka ci ay ràbb laa ko teg mu bënn ba sar loolu lay waxal ne yaari guddeem yooyu nga xam ne dañ ko doon sotti am am saw di tux cigarette di ku ko xër lu ñaaw lu ne ñu def ko fa foofee la wax ne ida zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa sabuta tarat ila al jihaadi bil armahi nafsi walakin sabba anil maahi yi ñaggi ñaggi xol jooju mu amoon ba tax ne bu fekkoon ne kuy fayantoo la dana jël fetal baa mu jël jaas yi ci bu demee ba am doole baa mu jekku walbati ak noon yi waaye dafa bàyyee woon boromam subhanahu wa taala Cheikh Abdoul Ahad nee na malaayikul muxarrabuun yëpp fekk nañ ko foofa mbooleem ko am garaat ci yàlla fekk nga ko fa bëgg ko faa jëlee mu ne la ndax ndigalul yàlla nga indi nga ne ko déedéet sama yërmande bopp laa indi mu la bàyyi maag yàlla mi ma bind kon kenn nattal lu ne nee na amut lu dut am lu ko ne caq ci ay mbagam na ko wur na ko ñii dañ laa bëgg a tardeel ba mu xoolee soxna jaaratullahi mariama bu solo guddeem yi métti yooyu la Cheikh Sidiyal Muxtaar tegoon bëtam tegoon ca pëstéefam tegoon ca jomam ginnaaw bu ko way juróom bu baaxam baaxam wax xalaatee ba yénne dugaloon ca ndabam muy Sëriñ Saaliwu magam ju baax ja naal ko mu ñëw ne lii ñu ma naaloon daal danaa ko fa yéene àggale lum man ak lum mënut mu def ko ca jël ci engagement it bu dëgër te engagement Cheikh Abdou Lahad leeraloon nañu ko nee na mooy loo xam ne bu ci nit ki duggee duutu ci génn daal di wane engagement diggante Serigne Touba ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci wasixtu bi rabbil arsi sil juudi wal afi maa maal Moustapha wallahu li moxlidin safi gën a waxaat ne wasixtu maal muxtaari billahi waxdahu engagement boobu sëñ Abdou leeraloon nañu ko boobu nag la Cheikh Sidiyal Muxtaar jël bi mu ko naanalee juróom-ñaari soroor yi fii ci Touba mu ne man daal du ma ci ñi naan boot jot la ngay rogg ni man daal sëñ Touba bala maa bala li ma koy liggéeyal dama ciy galfan wet gune mu féete ma fa mu daal di naal ñaar juróomi soroor yi Ndakaaru boole kook sànc yi ne ci biir Touba lépp mu di ko ci def ba sun borom dogal liggéey boobee àgg ngeen teewe ko ñu am ca bis bu ñu jagleel Cheikh Sidiyal Muxtaar àdduna bépp seere jëfam bisub keroog yaakaar naa ne bi ñu kàbbaree ci ndakaaru xam nañ ne la sëriñ tubaa waxoon ne tubaab yi ñooma fi jële woon na du ma delsi salimtu min al ahdaa i turran mahal tija li rabbi wa baabullahi lam yakku muhtaja ay buntam moom dootu tëj ndax xasaa inu rabbi futtihat li wa sasahar li xayril aza dunia wa oxra wa barsaqo ci noonu it bis bu yàlla demoon am xelam delluwaat ci yaari guddi ya kaneen ku moom bu doon toon sëñ Tuubaa fay yu dem ci sam xel waaye ba ko suñ borom ne mucc nga tey say noon a ngi nii tër naa leen fab naa paaka bi teg sa loxo loo bëgg mu ne ko xafawtu xanil ahda i turran li wàcci man nafaahum li xayri sarmadan lastu atfahu kon suñ borom jéggal googu mu jéggal noonam yi moo ko may ndamam lu rëy lee nga xam ne sëtam bu baax bi kenn mënu ko ci lu mu ci war a def def na ko ci kon Serigne Cheikh Mouhamadul Bassir Serigne Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma Cheikh Mouhamadul Mountakha ci kàddu Serigne Modou Mbacké si nee seriñ Serigne Moustapha ñi ngi lay wax jaajëf jaajëf jooju nag Cheikh Sidi El Moukhtar moo ko moom àdduna bépp maase nañ ko ne ko jaajëf jaajëf nag Serigne Modou Aminta noon na gàtt na waaye ku jëfut doo ko dégg te Serigne Abdoul noon noonu na ku liggéeyal Serigne Touba ku ne murit la war a fay te kenn nattaliwut ne Cheikh Sidi El Moukhtar moom liggéeyal na Serigne Touba kon murit yëpp ñoo ko war a fay kon ñu koy yal na ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara teeru yal na ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul teeru yal nañ ko teral teraanga joo xamante ni bii dana ne man de lu ma defaloon sëñ Touba xeet naa ko ndax teraanga ju réy foofee mu tëdd ca barsaxul Muhammadiyya te defal ko mbooleem ñam fa nekkal ñépp di ay magam yow mii fi toog toogal ko fi toogal fi Cheikh Mouhamadou Lamine ànd ak sarak yu baax yi nga xam ne fakkataluñ la ñi nga ànd ak yow ñi ngi lay ñaanal yàlla sa toogaay bii yàlla na yàgg lool te lépp ànd ko wér te lépp loo xam ne Cheikh Sidi El Mokhtar jëfoon na ko fii yàlla na la fi yàlla bàyyi ba nga jëf lu ko ëpp fuuf te ànd kook sa bokk yépp kon ñi ngi lay ñëw ci turu karawaan bépp nag di fas yéene taatan ay kaddu rek ci Serigne Cheikh Thioro mii nga xamante ni bii doomi Cheikh Mahamadul Bachir la moo ànd ak Serigne Cheikh Baara moom Cheikh Abdoul Ahad waaye ànd ak Serigne Khadim ak sa bokk yi nga nekkal yépp ñu jiitu woon fii ñu fas yéene taatan ay kaddu yoo xam ne moom danañu présenté jataay bi wax wax ñu waaw waaw waaw ak Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom sëñ Abdou Karim ak bokk yi ñëw yëpp rek incha allah sëñ Abdou Aziz waaw ñoom ñëpp danañ ñëw sëñ Cheikh Thioro dana ci ñëw incha allahu rabbi ñu bëgg ay kaddu yoo xam ne ñu xamal kan mooy Cheikh Mahamadou Lamine Baara Cheikh Mahamadou Lamine Baara sëñ Cheikh Baara wax na ko 46 ans la dund waaye dund ga yàggut waaye dund gu gudd ci amul njariñ fan yu gàtt am njariñ moo ko gën ndax moom kat dana des ci àdduna te dootu fi jóg sëriñ Baara diggam ak xam-xam doo ko jeexal sëriñ baara diggam ak sëriñ tubaa ci pas-pas doo ko jeexal sëriñ tubaa ci digg sëriñ baara ci diggam ak jaami yàlla yi doo ko mën a jeexal waaye nag ak ñi ko fi wutu ak seen i jëf moom lañ fas yéene taatan insha allahu rabbi ngir àdduna bépp mën a xam guy mbind gii li fi ne ak li fi sëriñ tubaa def te sëriñ tubaa duutu def du def fenn dara di ko fa jëlewaat di ko yóbbu di yóbbu feneen lim yor suñ borom da koo dogal mu mat àdduna mat àllaaxira sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax nee na te di sant la sëriñ bi yàlla. nee ndax jataay bii. jataay bu rëy la. jataay bu rëy la. jataay bu ànd ak bànneex la. jataay bu ànd ak bànneex. bànneex bu jur njëriñ. bànneex la bu jur njëriñ. lépp liggéey sëriñ Tuubaa ginnaaw lépp liggéeyub sëriñ Tuubaa kon njariñ rek rek moo ciy bàyyi ko. nee na ñu ngi ñaan ci sëriñ Tuubaa. lii ñu tàmbalee. yàlla na ko ni suñu borom àggale yëngutu gi ak dal gi lépp na ko sunu borom def aw yiw nangul nu ko defal nu ko it nag addiyee Serigne Touba yàlla nañ ko teewaat déwén te yàlla nangu liggéey bi may nu ak wér ban fekke ko ay ati at ci barke Serigne Touba yàggal fi nag sunu kilifa yi lool Muxtaar muy sëñ Ahmadou Muxtaar ak sëñ Muntaxa ak ña ca topp ñëpp jërë ngeen jëf yàlla nañ ko defaat déwén amin kon bu leen allahumma amin